ci dañoo gisoon émission euh, li nga xamante ne mooy seri bi di ndogu li daan aw ndogu euh, leen mais ndogu li la tuddoon non ndogu leen ndogu fa nga xamante ni moom mooy ala wal fajri mhm. donc foofu nag euh, ñu bëri daan ko fa seetaan waaye tey ngeen ñëw Sénégal set mhm. pourquoi ce choix da ngeen a bëgg a élargir da ngeen a ay problème ak ñooñu ba tax ngeen ñëw fii bëggoon nañu aussi leeral benn leeral boo xamante ni day nekk lu am solo parce que sénégalais euh, ñenn ñi bu ñu ko jàppee yaatal la rek parce que fi mu nekk nii sit bu amee nga am fay ay vues télévision nga am fay ay vues yaatal la waaye am na ñoo xam ne dañu ne du loolu parce que nag déggoon nañ ci ay coow loolu nag comme tungu ne du teew ñuy nataal ngeen dikkal ñu ci onze billahi mina sheytaan rajim <laughs> ndax xam naa lu yàq rek la gars yi di woon di ko waxtaanee. d'accord mais war fa am ñoo ñoom benn problème. ah alhamdulilah ñun duñu am fekk rek mu am leneen loo xamante ne dañ ko war a def rek def ko. d'accord def nañ fi tabaski ak Pam mhm. Ngañ. amoon na coow. déedéet. est-ce que boobu dañu amoon wal ak wal problème. déedéet comme la rek. Ah. wal fa dinañ ko tëjoon. Ah. déggoon ko fi dañ ko d'accord instant euh, yi commencé di war a gars yi nekk si tournage pour ko rek euh, déggoon nga ne war fa dañ ko tëjoon. bien sûr. ba nangu seen licence. est-ce que euh, ba nangoon seen licence. Mhm. est-ce que instant yi ba ñuy tourné est-ce que boobu est-ce que war fa amoon na licence am. d' accord xam nga dañ production bi. d' accord fekk wal fa atun pour production bi. mais ñun tamit dégguñu loolu de xam nga ñun tamit dañ ñu fee teg rek. waaw soo waa ci yokk rek. waaw muy dafa tuddoon ndogu li. foofu nag laa bëggoon dikkee très bien. bi muy daw wal fu ndogu li la tudd. bu ñu demee TFM ndogu leen la tuddoon. foofu la situation bi sax nekk. léegi euh, la situation muy problème bi am mooy que euh, walfu Euh, liggéey nañu ñoom ay at. Uh-huh. jóge fa dem TFM. Uh-huh. benn problème fa amoon la ak ñoom. Uh-huh. ñun ak ñoom. moo ñu yóbbu woon TFM. d'accord euh, Papa si. Pape Cissé yàlla na ko yàlla yërëm. bi mu noppaloo. Mm. Euh, Cheikh Niass wooñu pour ñu ñëwaat defaat ndogu li mais bi ñu defee ndogu li ba daaw année bi passé ñu def ko ak ñoom mais ren aussi dañoo toog di leen xaar bi leen xaaree ba sonn. yënguwuñu. ñun ñu ne loolu moom la mayaa doon expliqué sànq. ñu ne mhm. ñun nañ jug defal suñu bopp. Mhm. d'accord bi ñu defalee suñu bopp teewul aussi. soo ñëwaat nañ leen mi nga xam ni mooy kilifa gi ba sonn jotuñu ko téléphone envoyé nañ ko message. dafa réaction dafa réaction. Mhm. ci laa ci laa ne ah gars yi deux semaines moo ci des. man leen xool ban chaîne YouTube lañ ko mën a jaay parce que actuellement looloo taxaw wala ñu utal suñu bopp. non moins de deux semaines tan trois ci lan woo Ngañ moom it moom it il est généreux. ma ko waxee mu ne ma ah. koor gi de moom dina doy waar ma ne ko ah pap mu ngi nii te ñun ay kilifa lañ dañoo yor ay kër mhm. bu ñu sañoon daal lii dinañ am kuñ ko jox mhm. mu jox ñu dara sax loo xam dinañ ko mën a dundee ci koor gi mhm. mu ne kon jël naa ko wax dëgg yàlla naru ma woon jël parce que defoon naa benn production ak ñoom Sane boo xam dama ci financé xaalis bu bari. lu sax waxul sax ci koor. Uh-huh. mais moom laa bëggoon a dawal ci koor. d'accord mais dinaa ko jël jàppale leen. Uh-huh. socialement. d'accord mais bi ñu demee ba ci biir bi ñu koy doog a tourné ndogu li la tuddoon. Uh-huh. ñu defar bande annonce bi mu tudd ndogu li. ñu jot nañ ko dugal biir Sénégal set. xam nga tey yéen ñi fi nekk. loolu du leen um. déedéet moo tax may laajte dugal ko biir Sénégal seet. Mhm. bi nga xamante ni bande annonce bi jàll na ci la ko Cheikh Niass gis. Mhm. daal na ñoom ñoom moom ndogu li. turu mhm. ndogu li. kon nan changé tour bi. kon il a fallu mu daw suñu scène bi rek euh, euh, ngeen mën a am réaction. ci moom ah kon Sénégal seet dimbali na leen la waaw waaw c'est ça le problème. Uh-huh. loolu rek mooy problème bi. Uh-huh. et que ndogu li ñoom ñoo bind scénario. defar le concept mais turu ndogu li mère Rama Thiam moo ko génn ci kanamu Sidi Lamine ak Biteye ak Sadio. macha allah. waaw ah ndax euh, dañuy toog non non bi ma woo li ma njëkk wax mooy. Mhm. bi ma woo li ma njëkk a wax mooy. day leeral kay. Euh, damaa da damay yónnee huissier. ak mhm. sama avocat. Mhm. mu ñëw Sénégal set. c'est ça pour ñu dindi bande annonce. wa ilaa ñu arrêté division. yaa ngi loolu ma woo Pam Ngañ ci saase waxtaan ci ak moom. ma woowee Pam Ngañ Pam Ngañ ne ma non. non loolu moom mënul nekk quoi ma ne mu ni ma waa Pape Ngagne ne ma garaawal dinaa ko gérer loo tax ñu changé waat bande annonce ndax ko ndogu leen Pape nga ci la ma ne ma léegi nañ changé tour bi léegi ban tour lañ koy ma ne ko am na bu doon daw TFM de te leen mu ne ma ah waa TFM samay waay garaawal bàyyi ma jël boobu te turu TFM turu ndogu leen léegi nag euh, gis nga ku la kaaran Mourane Cheikh Niass suñu nit la dañ daan liggéey mu nekk ku baax wax dëgg fa yàlla mais dafa am yoo xamante ni man jàppewu ma ko nit koo xamante ni vraiment euh, am na lu ñu yéen lu bari ko parce que tey nit ñi dofuñu ñun dañuy liggéey. ñun li ñu yor moom mooy suñu matériel de travail. comme mm. moom ni mu yoree wal Walfadjri bi exercer. Mm-hmm. entreprise la yor ñun ñu yor entreprise di liggéey. te xaar ngeen ba sonn. ñu xaar ba sonn woote ba sonn jëluñu mais tey yërmande waroon na daw ak tolérance ba waruñu woon changer loo suñu turu ndogu li parce que xam na ni turu ndogu li moom la nit ñi gën a miin turu ndogu li. ñu ñu def ko daaw ñëw changer ko ren dina wàññi suñuy audience. non non pourtant nag audience bi nit ñaa ngi seetaan si Sénégal 7 la waaw Sénégal 7 ñu ngi seetaan. ñu ngi 2 millions d'abonnés mais waroon na ëpp lii. xam nga moo tax waroon na ëpp lii ñun suñu audience. Mm-hmm. mooy que dafa xëy dafa ñëw di ñu contrer. contrer quoi mais li ndorteel la rek. xam nga contrer bi ñuy contrer mooy la. jël mooy bi ñu xam ne def nañ ko yaa 5 ans xaw ma mu jël ko. di ko diviser waat ci seenam mettre ko à jour mettre ko à jour di ko diviser waat ci seen Walf production bu xëyee huit dugal ko pour ñun bu ñu dugalee suñu audience wàññi maanaam Sénégal dëkk la boo xamante ni lu ñu war a sangaat kon yooyu yëpp amoon na ci xam nga lu ñu war a raxasal xam na ma wax lu ñu war a raxasal mooy ay nit bu fekkee yàlla daf la dimbali yow ba nga am li nga bëgg am ba ne yor sa entreprise di liggéey ay nit créer entreprise pour demal seen bopp pour liggéey da nga leen war a jàppale. Mhm. da leen war a soutenir da nga leen war a pousser. surtout bu fekkee ne yaa leen xaw a tane. mais bu fekkee da leen di contrer y a quelque chose. Mhm. et que moo bëgg. dafa ñaaw dafa moo wax la benn affaire fii yàlla moo xam kuy dem yàlla moo xam ki mën yàlla moo xam lii am. yàlla rek de. yàlla rek moo ko xam. Mhm. ñun yaakaaruñ kenn ku dul suñu borom. mais maintenant liggéey lañ seet. mooy que ñun dañoo yor suñuy talent. di ko wane. Mhm. booba moom nekkagul sax Sénégal mu ngi France. ba tax papaam jël ñu. keneen a keneen jël ñu liggéey. d'accord mais suñu talent boobu ñun ñoo ko moom. mën nañ ko jaayee nu nekk te mën nañ ko jaay fu nekk. léegi benn question rek laa am euh, te interrompre ma la maa ngi jéggalu mooy da ngeen a sukkandiku woon ci ay contrat ci ay contrat bi ñu nekkee foofu. waa waaw dafa am moment boo xamante ni. Mhm. man bon musu parce que loolu aussi bu fekkee dafa am parfois euh, position bi mu tamit dafay nekk bu normal. Mhm. peut-être nag leneen li nga xamante ne sekkoon ngeen ko nga xam dem ngeen ba amitié am na duggante am na familiarité dugg na waroon na demee deneen peut-être waaye nag bu fekkee contrat moom dafa ñëw may ma wax ko contrat contrat bi ñu séq ak ñoom waaw nekkul woon si wàllu ndogale si beneen production ah d'accord d'accord lañ lii woon si contrat mais affaire ndogale nii nii mhm. xam nga dafa dafa doon nappe rek non nekkul contrat déterminé ah déterminé ah. de am na ah, contrat yu signé moom leen di wax bokkul de laa ko gis quoi d'accord d'accord ah en tout cas xam nga la moo tax mooy que mooy que ay nit ngay liggéey ak ñoom ñu liggéey la ay at 14 ans ñun amuñu dara de ah, mënuñu dara waaye lañu ah, xam nan ni vous avez vos talents wolof lañ fa dugal ci xaalis par weeru koor lañ fa daan dugal ci xaalis fekk fa ay booru booru salaire moo wax la benn affaire soxna si gis nga ku fàttalikuwul démb rek doo ko mm-hmm. ñun waruñoo nekk ay personnes ordinaires à Walfadjri. bien vrai que ni chaque année comédien dina xew. mais daa mën nga jël ab comédien mais ay fulcon ñun ah. waruñoo nekk ay nit ordinaire à Walfadjri. Mhm. Walfadjri bu ñu tourné. Mhm. ba war a tourné waat. Mhm. la ñuy dégg àll tey ni tey yeneen comédiens yi nekkee ci benn télé ba signé fa contrat ñu leen di fay chaque weer. def ay émission ci télé yooyu. Mm-hmm. ñun amoon nañ place. wala d' accord mais tam ñu may tuuti tamit yaay. ñu bañ a monopoliser. waaw yaay yaay ak Maya aussi. non waxoolu ëpp li nga wax baax na. dinaa dellu si waat ci mais xam nga ñoom tamit dañoo am temps d' antenne. léegi non kii la ni ñu koy waxatee. Ah. ndax affaire boobu ñuy xewal léegi ne far yaa góor jigéen fii <laughs> jigéen ah, d' antenne kenn ku nekk war na wax Michel yaa booy sànq damaa dégg ci kàddu euh, tan muy expliquer que ne ndogu li ci boppam ci yow lu bàyyeekoo donc bi nga demee ba gis situation bi ni mu demee en tant que jigéen en tant que yaay te daan doxal li nga xamante ni moom mooy euh, euh, seen sketch boobu mu am solo sénégalais yëpp bëggoon ko yow nan nga ko dundee. dara ndox man wal fu dëgg la waaye man aw ko sama doom yi. ndeysaan yi nga ñii fuñ ma diri ma fekk li. macha allah fu ñu jëm rek. dama leen di toog macha allah. ndax koo naan xaw ma nu ma lay def na mu la defa tax. te niñ ma defa tax. Mm-hmm. ndogu mm-hmm. sii di lamin moo ko taxawal. ba mu ootee fekk man dafa am kuñ fa invité woon. Mm-hmm. kooko invité ma. ma dem. léegi ba ma demee ñuy wax kii naan ma waaye mos nga mos nañ la invité fii man ko man maa ngi door a dugg tey jii. Uh-huh. Uh, biir wàll fekk Mbaye ngay laa àndal ak madame Kane. Uh-huh. madame Kane la invité woon. Uh-huh. mu ne naa ko gunge. foofa la ma Sidi Lamine gisee. après toogee bay wax affaire koor Sidi Lamine ma woo. woo ñi ñëpp. ñu ñëw toog. bi ñuy wax naan dañu bëgg a tur. fekk boobu. koor geeg koor lee nag koor dafa bari bari bari bari bari bari mhm. ma ne ko comme koor yi dafa bari mhm. nañ leen ko tudde ndoguli mhm. loolaa indi turu ndoguli macha allah tey di yàlla barkeel ko ñun di fa ne di fa ne xam nga nag ah, pañe bu fekkee ne dafa am ay janax du dem pañe bu am gerte foo fa janax nekkee du sotti d'accord nga tan mi li mu wax mhm. di dëgg mhm. ndax tey waroon nañ fa mën a toog te à chaque moment mhm. lu jamono jooju laaj pour ñu jouer ko dañ koy jouer macha allah mais aussi xam nga yor sa bool lekk nga ba suur pare nga raxas dëpp nga ko ba xiifaat ñëw jëlaat def dëppaat bool ba du la bari njariñ dañ ñoom dañ naan joxe yenn saa yi ay itam mais li ci ëpp ñi ñoo koy génne. Uh-huh. am na ci jamono boo xam ne man sax bind naa scénario. Uh-huh. mooy boobu ñu indee woon konkorong ba. Uh-huh. ñun ñëpp ku nekk danga bind indi. mais gis nga kii wut fu ma fanaan ak ki bëgg ku ko wéttali nañuy déggoo. Hmm. mais soxor baaxul. yàlla nag. gémmiñ gu mu xar def ca dara. Mhm. mais gis nga group gii. Mhm. kenn teeñu leen de. d'accord yàllaa leen teeñ. macha allah macha allah. ñii. Mhm. yàllaa leen teeñ te dañuy dem. yàlla na leen yàlla defal yàlla may fan gudd ak wér. ma yaa ñu ñëw tuuti laataa may ñëw ci Jean Michel aussi moom it mu jox ci point de vue am euh, sànq bi ma déggee yaay tamit wax. wax na ne Sidi Lamine euh, yàlla na ko yàlla xare aljana yokk ay leeram euh, que ne moom moo bindoon waaye yaay moo génn tur bi te bu ñu waxee ne genre sketch yooyu kii def conceptualisation bi dafa ne ak maanaam ku am solo donc est-ce que loolu taxul woon tamit moom mu am benn sañ-sañ bi am droit bi ba tax mu ne day yónni ay huissier ki yenn yi nga xamante ne moom lañ fi jotale tout à l'heure yaa booy dooguma la gis nga Sidi Lamine uh-huh. dañu ko liggéeyal ba pare mu fay ñu xaalis bu weex tàll. macha allah ba mu pare. Mhm. yëkkatiwaat xaalis bu bari may ñu. Mhm. waaye ba bo ba ñu ko gis ba ñu dem di juwe te gisaatuñu ko. oh ndeysaan. voilà bëggoon a ñëw oh! dama fay euh, xam naa cuujaat tuuti rek. kon ñëw fa tuuti à genre dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal yàlla. Mhm. Euh, fee ma tëdd oyof ci kawam parce que nekk na euh, kilifa nag. kilifa parce que. ba mu fay nekk sentiroon nañ suñu bopp. macha allah xam nga sa goos la. barki dem mooy njaay la fekk ñuy liggéey mhm. bu fekkente ne moom de dafa am lu muy argumenté wu ci lu ñuy ñëwee fii nii yaa ngi dégg mhm. ñu contrat tënkuñu ak moom xam la lañu sekk ak moom weeru koor la ñuy soxla ñu liggéey ko weeru koor mu fayu ñu dem mais tan mi ndox sànq la am te li wax duñ ci dindi virgule li mu ci wax nii dara réeruñu ci mhm. lu yendu ci moom day yendu ci ñun bu xaar fanaan ñëpp nag ñu noonu la ñuy doxee looy waay wax kenn nga xam loo koy wax ndax ñun ñëpp dañ ciy jot. Mhm. gis nga paa bi euh, Sidy Lamine Niass yal na ko yàlla yërëm yaa seddal ay yaxam. Mhm. toppatoo nañ ñu dégglu nañ ñu. nit ku ñu fonkoon la. Mhm. fonkoon ñu trop nag ci këram googu. ndeysaan yemaluñu woon sa employé fa nekkoon. ndeysaan imagine dañ naan tourné weeru koor ba pare. mu fay ñu bañ suñu xol sedd. ñoo bëti ko encore mu may ñu jox ñu lan korité am korité leen loolu moom am nañ ko ci paa bi. franchement parle macha allah te mu ñu quant à Cheikh moom bu ñëwee à son bu fekkee mënuñoo téye comme paa bi ñun ñu téye woon ñun ñu téye suñu bopp. Mhm. parce que ñun moomu ñaa contrat moo moo ñu tënk. te chaque fois qu'il a des problèmes foofu wal fajir man personnellement ci groupe bi laa bokk dama koy oo ne ko Cheikh mbaa ça va et le moral ne ma ça va même ba ci tëjee wal fajir man mayaa woo naa ko woo Charles woo bi tey jëluma may affaire am la. bu ma jëlul moom affaire am la parce que man ak moom démb la ndogu li boole yaa ngi doog ko wax njombe bi njombe bi yaa ngi dégg la ah bon non man kenn man je parle tant que la maison en général fa problème ak kenn xëy la problème xëy na ba euh, Cheikh Niass ñëwee xëy xamul li muy gere ndogu li mhm. gis nga boo amee ay nit ñuy liggéey ci kër gi di fi indi yenn somme yi xëy na sponsor yi ñun la ñuy wër gaa moom mhm. waruñu sponsor yi ñoo ñuy wër mhm. yaa ngi dégg mhm. di dugal li mel noonu ci kër gi ñooñu war nga leen a fonk xam nga ñooñu ñooñu war bokk nañ sa ressource kër bokk nañ li doxal kër gi macha allah yaa ngi dégg fekkente ne yow mënuloo tourner amoo budget woo leen man kat kër gi lii moo fi nekk bu ko defee tan am na possibilité am na am na link dem liggéeyante ji ay sponsor ñu ah, xaar ñun ñu doxalee nii macha allah wala soit que amuñu ko ah jëlal nga dugal mhm. xëy na gars yi fekk siñu loolu moo nekkoon wax ji mu xaar mhm. ba ñi dugal ko Sénégal set mi manifesté te tànk kii jonñu na ko man jonñu naa ko message baa ngi ci man ba léegi Uh-huh. koor gaa ngi agsi ba léegi ñu ngi lay déglu xam naa tan def na siñ mais dégg buñ la man je l'ai fait personnellement ma la wax la ko uh-huh. tan ne man de def naa ba sonle nañ toog déglu ko ñu déglu ko koor gi des ñaata presque une semaine uh-huh. ñu dañuy toog di ko xaar ñu te ñun noo a des mères de famille ñi ku ci nekk soxla sa bopp au oh, moins ñu ñëw tuuti mayel tuuti Michel rek eh, eh, eh, yàggul bi gis nga bi muy doog a bi muy doog a ñëw groupe gi yëpp on nañ ñu pour ñu dem rencontrer ak moom mais xam xam nga lan moo am ba ñu gisuñu ko kër gi nag booy ñëw war a gis borom kër gi toujours nit ñi bu ñuy wax di xas ki ci biir di di xas ki ci biir man leen bu leen ko wax dara wax leen secrétaire bi ci buntu ba gardien bi mhm. dégg nga yéen daal da ngeen a amul accès si moom buntu Walfadjri ñu la ñu ne la ñu ne bàyyi kii mu wax ba pare rek mhm. gis kii wax bàyyi ma fenn mhm. message yi ma envoyé yëpp moom waa si boppam message yi mu envoyé yëpp mhm. dama ko sotteel mhm. kii nag ma ne ko xam nga lu muy sama problème lan moo tax lii mu wax waxee ak man nii waxoo ko woon ak yow nii mhm. ma xamante ne dafa am fu dafa am nit koo xamante ne dafa am loo xam ne da ko mën naqari mooy jour ba waa ji ñëwee ne am leen ngeen defaral seen bopp depuis loolu la problème yi commencé biir wala waaw c'est-à-dire parce seen ñas moo ne woon tan kaa na ngeen dama seen bopp d'accord léegi kan la déranger foofu bi tey ok bi tey lay déranger parce que dafa bëggoon affaire yi ñëw ci moom mu mën ko réaliser. c'est pas compliqué dañuy waxtaan rek. fi ne tey jour Korité la dañuy waxtaan rek. waaw dama lay expliquer. xam nga xam xam xam nga man li ma intéressé. Mhm. ce n'est pas. benn nit wala nit kii. man hmm. loolu même ba ci Cheikh Niass. mais dafa mel ni bi tey moo leen xatal foofu ah. c'est une question. non non ça ne dérange pas ce n'est pas bi ou Sa Diop ou keneen. parce que hmm. ñoom dañoo yor seen liggéey di ko liggéey. Hmm, bu fekkee dañ leen a favoriser ba ñuy def leneen tamit ñoom la concerné mais man ce qui me concerne. mooy le producteur ñoom du ñu ay producteur dañ leen di sant ñuy def. le producteur c'est Cheikh Niass. Mhm. moo géré woon production. Mhm. moo daan génne financement ne dem leen ngeen produire. moo ko daan jox bi tey ñoom ñëpp du ñu génne seen xaalis. Mhm. Cheikh Niass mooy génn xaalis. moo doon génne xaalis Cheikh Niass c'est producteur. mooy que ñun on doit pas avoir un intermédiaire entre ñun ak Cheikh Niass. vraiment ah. parce que c'est le producteur nous sommes des artistes. beneen bi aussi mooy respect. c'est le minimum. mu ah. amante respect suñu diggante. dafa ñàkkoon. ñàkk moo tax soxna si ñu koy woo jëlu. ñu koy envoyé message tontuwul. ba mm-hmm. koor gi des une semaine mu gis ñu dugal bande annonce mu doog. maa ngi ni ñu waxal ñoom gisoo ne aussi de moment boobu nga wax nit ñi nga am na kenn ku nekk ak ni ngay ni ngay. Ah, sa sa problème fekk na problème bi passé ba président de la république. remettre ko ñun bi mu amee problème man ñu envoyé naa ko message. man woo naa ko ba muyu ma. ma woo ko jëlu ma. Mm-hmm. mais gis nga ndogu lii mm-hmm. lu lu mu am am problème wal fajiri mhm. ñun problème bu fa muti am dañ ñoo war a woo si wala man envoyé naa ko message Cheikh na ne ko li ma bëgg mooy mhm. ñun groupe ndogu li bi nga amee problème nañu site bi woo mhm. ñu ñëw toog xeex ak yéen problème bi macha allah macha allah mais mais tamit est waroon ngeen a xaar ñu leen di woo. léegi yéen yàgg ngeen wal faj waroon ngeen a dem nag. nit nga yàgg ak moom woote du doy. soxna man dem na dem man a lekk ne leen. fu ñu ma. dem na dafa ñëw taxaw di xeex di man dem na franchement wax la benn affaire ku ma woowul man duma personne ordinaire damaa liggéey ci réew mi. comme ñoom ni ñu liggéey ci réew mi. ku def sa pop personne ordinaire yow la. Hmm. man duma personne ordinaire. d'accord man n'importe qui. léegi ñañuy woo naan leen kaa leen jël micro taxaw xeex leen ñun ci lan war a bokk. macha allah beneen bi aussi mooy que le respect mooy que même bu fekkee danga am problème waroo xaar nit ñi di la woo pour liggéey man de li ma wax ñii rek laa lay wax mooy que. toogatuma bi xaar kenn ci sama liggéey. c'est ça en kenn du Papa Ngagne Ndiaye. waaw moom ah, non Papa Ngagne Papa Ngagne. kenn du madame Ndiaye. moom mooy numéro 18. macha allah sans problème moo ñu sauvé. tubaarkalla yal na yàlla dafa jàmm. moo fay moo fay tàq tàq. kenn du waa Sénégal moo fay tàq ñëw tuuti rek ci li nga xamante ni wax nañ ko fii boobu ba tey yow ban analise analyse semb rek nga ciy def. xam nga li indi problème bi yëpp mooy. Euh, bi suñu yaay génnee tur bi. dana woon dem sa protéger ko ci turam. waaw mais loolu aussi seen erreur la yéen. waaw parce que ñun du ñu protéger. du ñu protéger du ñu protéger. Eh, xanaa kuy kuy ay ay waaw xam nga. mais nag li ma si jaaxal man fi mu ne nii. Eh, eh, war fa du jof soda du moom war moom. waaw man problème du ma versé du ma versé ci la ci la man ci la. du ma versé sinon on va s'en bénéficier. suñu droit yi femme nañu nañu ko nañu ko versé. droit yi femme nañu ko versé on va s'en bénéficier. loolu nag attaque boobu lañ jëm si man li ma gis gars yi di coow ni yëpp interpellé nañ leen. li ma gis gars yi di coow ni yëpp bon man du ma si coow parce que man damaa jiital tan ñun ñëpp dañoo ànd jiital tan mu dem. mais am nga sa mot à dire. waaw am naa sa mot à mais moom laa koy wax. Mhm. su ma ko amee man moom laa koy wax. d'accord léegi nag lii problème man du loolu mooy suñu ay droit yi fa nekk. Mhm. mën ñu ko jox. Mhm. dégg li Tane Bombe am na problème ak Cheikh gis nga bu ñu waxoon fi ñu toll ñu tourné ñun du ñu tourné moom bu ñu waxoon bu ñu tourné du ñu tourné. d'accord bu waxoon tamit dañ koy tourné may leen ko ñoom. dañ koy tourné may leen ko. te muy dëgg. wallaay kon nag bon lii man li ma gisoon mooy. lu mu métti métti métti ngeen toog waxtaan bu fekkee tan bombe woo na la mhm. da nga ko war a wuy ndax yàgg ngaa liggéey ak moom yàgg ngaa demalante ak moom yàgg ngaa bon bu problème am rek nga bañ nit ñi xam ndax jox nañ la fan lay recevoir wala joxuñu la nga jël ñenn ñi di leen sacrifier loolu tamit rafetul d'accord bon man man dama jàpp ni dafay daw ni pour sénégalais yi séné victimisé wu pour sénégalais yi bañ xam ni jox nañ ko di ko recevoir ñun man sama yoon néew ci dëgg fa leer ah leeral nga nag <laughs> xaw ma jox nañ na leen cee dompal ko kon dafa am problème xëy na ah. problème yee tax daal faale wuñu daal euh, daal kon daal euh, bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabbi alamin te ndogu leen te ndogu leen boobu ñun tan da nga fàtte nga ne euh, TFM garaawul ndogu leen ci Pape lañ demoon da nga oublier sa bopp naan ca la woon générique bi ñun dañuy ndogu ndogu leen. voilà yow xam nga fii ci TFM ndogu leen. non xaaral déedéet même xaaral xaaral ma si liggéey tan damay ñoom même tour bi boo xoolee ci ñun la génnaat. parce que bëgguñu woon méngoo tour bi ci lañ indi ndogu teg ko. waaw c'est vrai. cela veut dire voilà. c'est parce que vous êtes des artistes quand même il suffit ngeen toog rek xalaat seen bopp xam li ngeen bëgg. clic rek mu ñëw yàlla defal taw fee. clic suñu alal ba ñuy ak suñuy suñuy millions. Hmm. la nekk. effectivement mais ñi xam nga ne dëgg dëgg xam nga ne ñetti apport moo am en entreprise apport en industrie moom mooy xam-xam uh-huh. kon ku ko am dafa nekk loo xamante ni kenn mënu koo fay sax mm-hmm. apport en industrie kenn mënu koo fay apport matériel ak apport financier loolu sax kenn ku ci nekk mën nga ah, dem bu sa xaalis ñëw teg mais apport en industrie xam-xam la kenn mënul fay yàlla na yàlla defalaat jàmm yàlla aussi jubóole waat leen ak Cheikh Niass ngeen nekkaat seet jàmm ñi leen di sonal bàyyi leen ci jàmm waaye aussi Sénégal set ngeen ci gën a gis seen bopp ah. voilà te bu leen demaat ci feneen nag toog leen Sénégal set euh, fii moom suñu kër la moom parce que suñu kër la tabaski bi sax ñu koy waaj tabaski bi parce que instant bu soobee mais bu boobaa dinaa woo Jibi mu ñëw présenté. mais nag mais nag da ngeen fàtte leen